man de damay wax ni président Abdoulaye Wade ku di murit war nga koo ñaanal ngir ma sabi ko jigéen man de lu rëy man man de lu rëy man yëpp ak dégloo te yàlla rek a tax nag ma koy wax ndax kii xam na ci dara. damaa moom loolu daf ko doy. ci lim jëfal Serigne Touba. ci nee na fu ne nag laa koy wax. nee na waxuma ko ngir waxi nag politique. benn politicien. ndax ma xaw ma benn politicien. du ci kenn. du ñu fi du ñu fi ne woon. du ñu fi ne woon. du ñu fi ne. kon lu may wax rek yàlla rek kay tax. jërëjëf kon euh, mbooloo mi. d'abord yéen ñi ñu ànd ak délégation bi rawatina yéen ñi ko jiite tàmbalee ko ci moom ak képp kuñ ci tudd ak képp ku ci ànd muy góor muy jigéen ah président Abdoulaye nag sëriñ bi nee na gën delloo ko nuyoom di ko wax ne ko mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal itam yàlla yokk fanam yokk wéram yokk manam ndax xam na ne ko am yéene la ci kër sëñ Touba. Mm-hmm. loolu moom ku jullit wala ko di murit xam nga ne comme yéen sëñ Tuubaa loolee tamit mu ngi koy feeñal waxtu wu ne lii sëriñ bi wax mujj ko wax ko muy ñaareelu kàddoom muy Masaalikul Jinaan bépp murit wala bépp Afrique bépp jullit bu romb foofu gis jul jullikaay bi gis place bi boo ko xamee boo ko xamut danga ko ñaanal waaw ndax li mu def moo rëy kërub eh, Dakar nga ñëw def fa lu toll noonu foo xolu Dakar foo toll ci adduna bi seen sooroor bi mu mel ne dafa la jël Lamp Fall gi nekk Touba remplacé ko ca Touba ca Ndakaar ba foo toll seen ko loolee yëkkati na Serigne Touba. Serigne Touba nag kenn du ko yëkkati day des suuf ku ko yëkkati da nga yëkkati kon nag Serigne bi mi ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax moom du politicien du leen waaye ab Serigne la. sañ na nag ñaan gis lu baax gis lu rafet. wax ko loolee mu gis nag mu baax mu rafet moom la wax loolu kenn mënu ci dara kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax. gis na fi jëf na fi jëf ju rafet jëf na ko ci yoonu murid loolu moo wax titre foncier Touba kenn ku nekk xam na ni ku ko yokk yokkal nga sëñ Touba ay këram mm-hmm. te sëñ Touba yokk jàkk ndax moo waxoon yàlla ne ko defal ma sama néeg yëpp mu ngay jàkk mm-hmm. wàccal bu yooti laa kulluhum masajid yàlla na nga def sama bu ne muy jàkk moom fu mu nekk jàkk la fu mu tëdd jàkk la fu mu fanaan jàkk la kon na ku yokk dëkk bi rek yokkal nga koy jàkk yokkal nga yàlla mm-hmm. kon Abdoulaye Wade defal na yokkal na prix sëñ Touba waaye nag sëñ Tuubaa moom kenn du ko liggéeyal di ko réccu mm-hmm. kon nag du ko réccu tey du ko réccu ëllëg jafe-jafe nag mën naa am ak jàng-jàng lu ne waaye sëriñ Tuubaa moom toujours sëñ Tuubaa rek te ku ko jëfal da ko gis kon nag sëriñ bi nee na ngeen santal ko ko bu baax ñe wax ko nekk mi ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla jàppale ko ba fi mu bëgg a yóbbuwaat Sénégal mu yóbbu ko ba yàlla nag mooy joxe nguur moo waxoon ne maa ko jox ku ma soob joxoon nag ko jox na ko mën na ko koo kon nag nee na ngeen nuyul ko ko koy ñaanal Karim Wade tam ngeen ah. nuyoo ko ko. ndax nee na moom itam rakkam la ni ko sëñ bi waxee. Mm-hmm. léppam la miinante wuñ waaye nag dégg na jëfam dégg na ak bëggam ci dëkk bi ndax ba mu nekkee ku judd ci yoonu murid rek murid nga. Mm-hmm. kon nag moom murid la saadex la mi ngi liggéeyal bëgg naa liggéey sëñ Touba. kon nag yal na ko yàlla jàppale ba mën a liggéey sëñ Touba na nga ko daal mi ngi sant délégation bi bàyyiwu ci kenn nag ni délégation bi ñëw rëy na ci moom lool. ndaxit bu kenn ñëwoon rek ne ci président laa jógee doy na ko sëkk. Mhm. bu sëñ Cheikh ñëwoon rek doy na sëkk. waaye nag délégation bu toll nii ngeen sàkk ko ngir màggal gi borom màggal gi nag euh, lépp ñëwul por bor dafa am pay. Mhm. sëñ Moustapha fa lu moom ku ne xamoon na kenn ku nekk xam na lu mu jëf fii ngeen ñëw nag fii la ko sëñ euh, Abdoulaye Wade sëñ Moustapha Fall boole woon ak euh, borom gaawam ba mu dem foofu fii la ko woon ci xaayare booba xaayare melul nii. kon tey bu ngeen fi del siwaatee mu yebal daal leen fi xam na li tax mu yebal leen fi ci bis bi bis bi nag bisum ñaan la ñaanal sëriñ bi nga xam ne moo fi jóge waaye ñaan itam li nga xam ne moom la ñu bëgg kon nag ngeen ngeen maase ñaan li ngeen bëgg ci bis bi parce ko ci ndax bis bi attan na ko borom bis bi attan na ko